maa ngi tudd ay dara Diaw nekk la présidente des jeunes filles amazones de Pape Siré Dia. waaw résultat élection yi ñu jóglu référendum bi. dañu dañu dañu ko sante yàlla parce que dañ ci def une analyse positive bi nga xam ne moom lañ doon liggéey depuis euh, bi ñu jugee ci élection élection législative yi di 2014 ba léegi suñu leader muy le DG de la poste muy Pape Siré Dia doon ko ànd ak ñun ñu di ko liggéey ñi nga xam ne ñoo ñoo ñu fi jiitu ak ñun ñi nga xam ne ñoo leen fi fekk si ak ñi ñu fi fekk si ñun ñëpp mu sant ñu benn mission mooy que nañu def tuub ak population thiessois yëpp mën a fësal mën a xamal mën a dooleel mën a gisee nga xam ne moom mooy liggéey président de la république muy monsieur Macky waaw ci sama jàngat tey jii nii dama jàpp ni képp koo xam ne Cees nga ba nga mën a porté volontaire dem voté ji la wii jàppale le projet de référendum bu président Macky c'est parce que ni bu dul Pape Siradia tamit ndaw Pape Siradia a eu la noble ñëw waxtaan ak yow wax la li nga xam ne moom moo nekk ci biir référendum bi parce que liggéey boobu la ñu santoon mu ànd ceeg nag waa Bennoo Bokk Yaakaar yëpp mais moom si jëm boppam dafa porté woon volontaire bi nga xam ne responsable politique APR yi nga xam nekkoon nañ Cees yëpp daw moom il a pris ses xam ne moom moo nekk est ba pare jël ses lieutenants teg am envers la population wax leen li nga xam ne moom mooy liggéey président de la li mu namm ak li mu bëgg ci biir référendum bi ba population yi nga xam ne ils sont conscients ni tey ji ni wii bi ñu voté dañ ko voté pour jàppale la Sénégal je pense que ni bu dul Siré Dia it ndawu Pape Siré Dia moo leen ko xamal leeralal leen ko ba ñu leer seen bopp waaw euh, man xam nga tungu ne teen ñu nataal te fu ma mu gën a mën a tegtalee mooy sama gox parce que man maa ngi dëkk Grand Thiès dëkk ci côté ouest bi boo demee ci ouest bi comme euh, ni ko tonton Pape waxee muy Mbour 2 centre dafa nekk centre yoo xam ne daawuñu ko sax laam-laamee ba xam kuy gañee ku dul gañee dañ daan wax ni carrément réew mi daf ko yóbbu tey jii nii boo demee APR gagné na ko parce que ñun on a eu des proximités yoo xam ne def nañ ko ci kër par kër ci koñ yooyu boo duggee biir talamin Lamy pareillement tey jii nii écart bi nga xam ne am na fa entre le hui et le non musuñu ko enregistré dans l'histoire politique bu Thiès depuis réew mi nekk au pouvoir ba léegi donc kon tey jii nii xam nañ ni population bu ñëpp yeewul it am nañu yeewu te kanam la jëm biir jum tamit tey jii nii la majeure partie des Amazones ce sont des habitants de Dioum ñi nga xam ne biir Dioum la ñu dëkk te kon dañ fa doon dem di waxtaan ak population biir Dioum di waxtaan ak zone yi di waxtaan ak ñoom kenn par kenn ñu marché yi ñu fenn donc kon tey jii nii foo xam ni boo demee ci nord bi yi nga xam ne enregistré nañ ko ci ay résultats positif tey jii nii suñu yaay suñu xarit muy mais Astou Gueye moo ko eu à ce que moo ko fa divulgué moo ko fa liggéey te bu ko liggéeyee tey jii c' est grâce à Pape Siré Dia muy le DG de la poste moo ko dooleel donc kon fii nii que ce soit à Thiès est ouest ou nord foo ci mënti dem tamit bu dee moom tamit moo jiite woon est bi tamit bàyyiwul yeneen gox yi gox yëpp def na fa ay nit ñoo xam ne mën nañoo liggéeyal mën nañoo def ba nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yeewoo biir Thiès xam ne référendum bi njariñu sénégalais yi ñaniruñu waa Thiès si la. waaw su ma amoon message bu may lancé jëm ci population Thiès dama neen laan carrément yeewu ngeen gën leen a yeewu. ce message bi nga xam ne moom laa leen di wax parce que instant bii nii ñëpp xam nañ ni Thiès la woon woon ni na donc kon tey gën a jëm kanam te duñu bàyyi ah avec le DG de la poste li mu ñu sant mooy que ni nañu wax ak bépp bu Thiès waa bu jëree kenn ku nekk ñu taxaw ak yow dinañ ko def donc bii di ñëw maa ngi ñaan képp kuy Thiès tey jii nga xam ni tu as eu à ne nga ñëw veer ñun wala nga woola ñu ñëw veer yow expliquer la ba nga comprendre xam ni li ñu président de la république di liggéeyal suñu liggéey ñu suñu njariñ la ñun ñoo ko moom et le DG de la poste mi ngi fi di ñu jàppale li mu defal waa Thiès day gën a wéy day gën a continuer donc yoon la Thiès waa yëpp delloo ko njukkal ton maa ngi leen di ñaan Thiès waa yëpp bu 2017 jotee njukkal bi ñu ko delloo ci référendum bi nañ ko triplé bu ko defee njukkal li gën a neex su boobaa le DG de la dina xam ne li mu doon def biir Thiès waa gis nañ ko